nopp dama laa di dina doxaan déggoon ngeen yooyu dañu ñëw ci yom importance yi li mu wax sama yaay ji moom mi ngi nii jëruma ciy jaaraat. moom lii la wax Amina Poté nan déglu. moom Amina Poté mooy lan génn. dañuy jëkkër ak jabar dañu doon dañuy naan mandi ñett ñëpp dañuy mandiloo toppandoo mandiloo xaaral lii du ko teg lii lii lii jëru teg lii sama yaay ji duma teg ay kiyam quoi li ñu koy waxee lu ñaaw nan déglu rek Pape Cheikh bi déglul dëgg la benn femme bu son fekk Amina Poté bu toog mu ko yow problème sa mm-hmm. ko baal mm-hmm. la indi biir TFM nga nekk fii mu indi la ci biir xeex ko. Mhm. boo toogee doo tudd turam booy sant da maa ngi gërëm Ndiaga Ndour ak Bouba Ndour fi indi te ñëpp xam nañ ne Kouthia la fi indi. Mhm. yow bilaay Amina Poté maa ko njëkk ko ci benn baar bu ñu naan chez Mbaye Ndiaye. Mhm. benn copain. serveuse bu nekk ci benn baar. dama ko nopp. mu ñëw ma ko yow la ngay liggéey mu ne ma serveuse laa. ma ko serveuse la. mën ma ko si xaalis boobu ñu lay fay maa ma baar bi man xam naa ne bu bu bu séddale bu guddi mhm. ba koy réglé. Mhm. ma nag kaam ma lii moo tax moom mhm. am na benn télé bi waaj bu ñëwee dinaa la fi indi bi télé bi ibbee bu Youssou Ndour wax ma ko première jigéen ba njëkk a teg tànkam TFM Amina Poté di Souta. man maa ngi génne foofu ci mbir boobu doon ko fa. daa te wax wax dëgg la. li indi sama problème ak moom benn dama dégg ñu ne ñoom euh, mannequin boobu ñoom day naan ak yeneen kel dañu la doon fay ay salaire yu yoo xam. yàlla de. Mm-hmm. doo dafa cancer. ak allahu akbar wuy sama ndey ii laaj laaj ma fan ee boppam laaj ma ay ay ay allahu akbar boo gisaatee bu jéggee sa ndox doo ko naan wuy sama ndey yaaw jaal ko yaaw yaaw jaal ko kañ nga ci dara bi loolu moo a jaaxal ni waaw léegi ñu pare foofu mbay nekk ci man yow hee nekk ah? sama ndey yow lay wax ni cancer wax ma la cancer de cœur cancer de l'anus ndekete moom si gars yi la bokk dañ ko blessé. ah, ah. ah muy maa ngi dee. naka jekk ma ne kii tuuram gu rëy gii ak feccam bii yaabam bii mu yaabam département bii. dëgg la. benn femme bu son fekk Amina Poté bu toog mu ne ko yow problème yi ngay xam yëpp xam nga sa problème waaw. tant que demoo ci tànk ku caana ko. ak yeneen kel dañ la doon fay ay salaire yu yoo xam ne ñoo ëpp góor ñi fa nekk ma yëg ko nag syndicaliste ne dañuy grève ñu laaj ma nag kon mm. man xaw ma sax nu mu demee mm. ma jóge sama kër rek <laughs> wengal sama mbaxane gis gars yi takk brassard rouge mm. man la ñuy xaw ñu ne ma dañ doon fay salaire am ay feuilles yu rëcc kel yi ñoo ëpp salaire ay ñi nga xam ne fii salaire un million man leen ah bon ñoo ah man leen ku ci fay salaire un million caaga nga mm-hmm. jigéen fii maa ko fii ci télé bi loolu nag indi problème nag loolu indoon sama problème ak bëggoon premier problème ak ñoom. waaw. ñu ne ko Amina yow Kouthia la fi indi ko. Mhm. ah. Mhm. koy bàyyi après yow ñu la yóbbu la ngay def par Paris nga génn ci émission boobu. saa ma dégg. Mhm. ñu utiliser la kon moom yow loo ko xamal rek nga wax ñu ko kon information. Hmm. loolu ñoom Ndiaga. parce que boobu dëgg ngi dund. ñoom ñëpp ñu def délégation dem ci yaay yi suñu boole ma ne ñoom dañoo am jëkkër mais Kouthia dafa wax benn wax joo xam ne seen jëkkër yi wóolatuñu leen parce kuñ fi fay lii rek càgga nga. Mhm. loolu <laughs> coow loolu mu ngi ci internet ba tey. <laughs> man de nekkul boo demee nga tàppe boo <laughs> demee nga tàppe da nga koy gis Kouthia traite les femmes de yàlla dafa bind ci alxuraan ne. pour mu cautionner njaaloo. wuy ma déglu leen bu baax audio yi am importance yi ñi ngi ñëw. fi muy waxee ci Pape Cheikh Diallo enregistré leen lii ngeen déglu bu baax Kouthia li mu yàq Pape Cheikh Diallo déglu leen bu baax a baax a baax a baax a baax waaw. yàlla dafa bind ci alxuraan ne. pour mu cautionner njaaloo. il faut ñoo xam ne bokkuñ fu ñu dëkk. Mm-hmm. xamuñu. bu dajee ci benn moment boo xam ne dañuy fekk action bi à l'œil. ñun mhm. mhm. bu koy soog a waaw pour nga ne kii njaalookat la. Mhm. man bi ma déggee ñu am ay Pape Cheikh Diallo góor jigéen la dama ne non man góoma loolu. bi bi bi bi mu njëkk a am doomu Aïda Patra. waaw moom ma njëkk wax na ko dafa moom dafa ñëw ci buntu bi. allah mu takkaat kiyaa bii ma lay wax nii kiyaa. waaw bi mu mujjee takk. kiyaa bettaat ko ak góor. te ñoom ñett ñëpp dama wax ak ñoom kiyaa dafa wax ak man bay jooy dama ko caa waaw ma dama li ma métti sama kàddu la mooy kii bi muy dugg ci moom. Hmm. yëpp góobu ko mais moom la. dama ko xamee. Hmm. waaw dama ko xamee man. Hmm. premier bi mu ñëwee jox ñu dama si loxo. dama téye sama loxo. Ah, waaw. wala saa yàlla ay nuyu la ko noonu. léegi nag gars yi ma toogoon na ma ko doxoo. xam naa ko parce que dama ay seede yu ma leer ko seqal. ñett ñëpp ñetti jabar yëpp wax loolu. yëpp ma ko ñi ko wax duñu ay xaritam ay noonam ay jabaram nañu laa ko bàyyi àddina ak alaaxira. Hmm, yaa li mu wax ci Pape Cheikh Diallo defe naa leer na ñu déglu. kan ak ko teg. léegi ñëw naa ci pep ñi Pape Cheikh Diallo pare léegi damay ñëw ci kiyaam yi eh, nu mu tuddati Kolle ci Kolle laay ñëw Kolle Faye Kolle Faye mii Kolle Faye mii eh, eh, Kouthia da ko doon yóbbu ci sëriñ pour ñu liggéey ko joxe turu yaayam ak turu papaam ngeen déglu liggéey bi nan la ko war a defee. ku caa yaa bon yaa téegal sa ndey déglu leen bu baax. kon la fay turam dëgg Aminata Fay la yaayam Sira Diallo yaayam Sira Diallo. déglu leen baax. kon la fay turam dëgg Aminata Fay la yaayam Sira Diallo yaayam Sira Diallo Sira Diallo yaayam Sira Diallo papam Waly Fay. takk yu ñuul yi dañ koy safu diis dañ koy safu diis waaw. benn bi nekk ci buus bi kese damay dem ci toilette wala ci fos ma bàyyi ko ci mu dem. quatre téere yi moom laay jël ci potu Nescafé. tooyal suuf jiital ko. voilà après nag dugal téere yi ci biir. dugal téere yi ci biir. remplir waat ak suuf bu tooy. jël kubéer bi bëtt si kaw jël kubéer bi bëtt ko pour moom air. voilà nga tëj ko. su may tëdd guddi teg ko ci taal bi deux heures temps. su ma jógee teg ko su may sangu pour liggéey teg ko fa. voilà sept ba huit heures su may dem teggi ko. su ma ñaatee ngoon si tamit defaat noonu. teg ko chaque pendant sept jours. pendant sept jours yoo xam ne sans arrêt suuf bu tooy moo jiitu teg ci garab bi tegaat ci suuf bu tooy bañu ko pour mu am air set teg ko ci taal bi pendant une heure de temps. Kolla Faye la doon